ñun lan moo ñu dal ñun. jërëjëf dëgg yàlla jërëjëf. daa raison te ñu daal di dellu si ah, ci euh, réew mi euh, suñu troisième point. militaire au camp pénal. dégg rek nga wax naanaka di se retrouve sur les réseaux. Euh, sociaux des réseaux des des vidéos qui sont devenues euh, virales ni ma ko gisee nga gisee ko noonu la ko sénégalais yi gisee euh, ginnaaw yëngu-yëngu bi nga xamante ne amoon na ci camp pénal bu liberté 6 donte jàmm dellu si na waaye ñi nga xamante ne mooy administration pénitentiaire ah. jébbal nañu ñoom aussi seen version indi na ñit ay leeral ba annoncé une enquête boo xam ne dinañ ko ubbi pour leeral ñi nga xam ne ñoo doon filmer yooyu les vidéos ba daal di koy dugal ci réseau yi waaw lu tax ngeen koy énervé et puis dafa feebar li nga wax lépp dëgg la tubaab bi moomu nunu mm, noonu moom waaw ah français yi moomu nunu laa wax la ma d'accord noonu xolal xolal waaye xolal boo dëjee sa ndey ku la neex ut waaye mami tous jebe mami mami reviens sur terre ayca ñu dem ah, camp pénal <laughs> doo la dafa xew démb wax dëgg yàlla waaw déjà vidéo yi ñu ñëpp a gisandoo réseaux sociaux yi ci loo xamante ne euh, fuya ko taxoon jóg mhm. règlement bi autorisé mhm. gis nañ fa mu mujj moo daan am moo amaat tey oui on a annoncé une enquête certainement pour situer les responsabilités na ay gardes pénitentiaires yoo xamante ni jàpp nañ ni xëy na seen loxo génn ci xëy na peut-être enquête bi dinañu leeral loolu mhm. mais li nga xamante ne xëy na moom la ñenn ci détenus yi fësal mooy anam gi ñu doon defee fuy fekk seen euh, lekku tabaski xëy nañu këpp ko wala yu mel noonu loolu lañ bëgg mu jeex. Mhm. waaye fuy bi peut-être li muy leeral mooy yi dugg te warta dugg nu muy def ba jàll yooyu yëpp la boole. Mhm. ci yow oui bu ñu situé les ak fexe bu lu mel ni dootul amaat ci ayu njiit lu yees li. Mhm. parce que am na njiit lu yees ci administration pénitentière sañ Ciss lu ñuy def. waaw xam nga déjà dañuy naxarlu li nga xamante ne moo jotaam comme pénal parce que ce sont des images qui vont parcourir et euh, ce ne sont malheureusement pas de très belles images pour dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne euh, euh, rawatina nag euh, ci réew moo xamante ne ni yàgg nañu kaas conditions yi nga xamante ne ñoom la détenu yi nekkee ci biir kaso yi hmm. te ñu yàgg wax ne soxlawul ngay militer Amnesty International wala nga bokk ci benn association wala lenn lu yëngu ci wàllu droit de l'homme pour xam ne Euh, nit dafa am ak ak yelleef bu ñu war a sàmmonteel rawatina nag ki ñu tëj hmm. ndax ki ñu tëj dañu ko privé de liberté loolu moo tax ñu ne bërëb ba mu nekk lieu de privation de liberté la am na lu bari loo xamante ne amoon nga sañ-sañu def ko doo ko def boo duggee ci biir néeg caabee lay féetee ginnaaw euh, sa lekk dañu koy contrôler sa ay visite dañu koy contrôler heure bi ngay génn doxantu dañ la koy tànnal heure bi ngay dugg dañ la koy tànnal ci prison boo xamante ne ni Euh, ñi fa demul itam yàgg nañoo dégg ne euh, condition yi ñu nekkee ci biir kaso yi metti na te tar na te difficile na lool lu jëm ci wàllu surpeuplement beeg yeneen wàll yi ci am. Hmm. te ci biir kaso googu mu am ci ay nit ñoo xamante ne ñii danoo commettre ay délits yu leen fa yóbbu. bal balaa koy góor nii Jelmaani. la charge revient. balbala ay balbala la ñuy dóor fii nañ koy dóor nii Jelmaani. Jelmaani nañ tëjee te mosul. balbala ay balbala dafay Jelmaani nañ koy dóor nii Jelmaani. et dafay soulever ay question yu bari question bi ci jiitu mooy Pape Ousmane. prisonniers yi nu ñu def ba am téléphone beneen bi ci topp mooy am téléphone yamu ca waaye am connexion ba dugal ko ci biir réseaux sociaux yi ñëpp jot ci image yi les gens ont vu des images de la prison ci yenn conditions yi nga xamante ne moom la ñu fa nekkee gis itam li nga xamante ne moom la ñu wax ne moo jur coow bi am ci camp pénal et il y a eu une certaine campagne de désinformation parce que pendant période bi mu amee moo tax tey ak dal ci yenn info yi dafa baax lool ba nga am source mm-hmm. officielle bi mm-hmm. Mm-hmm. ba nga xam naka la nit ñi di wundu parce que les conclusions sont allées très très vite te ñu rafetlu aussi euh, euh, gouvernement bi décision bu gaaw bi ñu ciy jot a jël ba dalal la fa jot am parce que yi day am ci kaso yi soit parfois dañuy am information bi wala duñ ko am souvent ñu dégg itam ni ñi nekk ci biir kaso yi dañuy grève dañuy amal seen ñaxtu parce que daf ci am lu bari ci seen ay àq ak yelleef yu ñu dul respecté forcément et loolu yëpp wax dëgg yàlla boole ci ñu tëj la ci benn bërëb dafa metti te defe naa ne aujourd'hui euh, défi bi nga xamante ne moom la gouvernement bi am mooy fexe ba yaatal kaso yi wala tabax ay kaso yu bees hmm. fexe itam ba àtte yi gaaw parce que am na ñoo xamante ne dañu leen di tëj ci kaso bi nabu balaa ñoo génn wala bu ñu génnee day fekk bu ñu leen àtte yi tëdd nañu Euh, peine bi ñu war a tëdd war tëdd lu ko ëpp te dara du leen ko remboursé par la suite dañu war a également faire le travail psychologique des prisonniers te loolu waruñu ko tàmbali rek bu ñu génnee balaa ñoo wax réinsertion sociale la prison certes dafa def dañu la fa dugal pour ñu euh, corriger la am lu bari loo xamante ne dañ koy dindi ci yow waaye ci biir kaso ba war ngaa mën a am possibilité aussi lu bari nga jàngaan ko fa mhm. jàngat ko fa ba nga xam ne boo génnee dina la mën a servir à l'extérieur te loolu malheureusement les réalités font que les conditions sont difficiles mmh. donc aujourd'hui cette enquête on espère que dinañu xam dëgg-dëgg parce que fuy boo xamante ne nii euh, dafa jure prisonniers yi ñu am euh, moment de colère faut voir kon pourquoi cette fouille la n'a pas été acceptée ban type de relation le garde yi am ak prisonniers yi ba relation conflictuelle am fa hmm. à quel moment quand l'étincelle était là les gens n'ont pas su n'ont pas réagir ba mu jur le feu ci camp parce que loolu yëpp pour man c'est des responsabilités à situer. Hmm. chanvre indien bi ñuy wax ne moom lañ fa dugal lu ko fa dugal. ci ban circuit la jaar. parce que prisonnier que je sache fa mu nekk ma nga fa nekk mënta génn. Mhm. kon ki génnul dëgg génnul ci biti jëndiwul kooku nan la mën a def ba dugal ci biir. Hmm. ak ci ban circuit la jaar ba dugg. loolu yëpp c'est des questions yoo xamante ne il faut qu'on se le pose. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est révéler au grand public les conditions dans lesquelles ils étaient. su fekkente ne communiqué rek la kon mën nañu jàpp ne ñoom ils ont bien communiqué parce que lu ñu bëggoon jàllale jàllale nañ ko hmm. malheureusement. et les images sont tellement fortes que aujourd'hui on ne pourra pas dire que prison comme pénal bi nga xam ne dañu jàpp ne sax ci prison yi tane yi la bokk. je n'ose même pas imaginer bu fekkoon ñoom seen mutinerie dafa déclenché yeneen mutinerie ci yeneen i prison parce que mm. attention à ce que information bi ñoom bu ñu ko yégee ñeneen ñi jot yëngu-yëngal te bu boobaa dañuy am benn foyer de tension bu difficile à dans les prisons sénégalaises ci contexte bi ñu nekk contexte tabaski bi mm. nga xam ne ñu ci bari ñu donc vraiment mm-hmm. pour man il faut plus qu'une enquête sérieuse ah. pour man il faut aussi entamer un réel dialogue entre les prisonniers ak ñi nga xamante ne ni euh, ñoom la ñuy jox responsabilité bi gis nga garde pénitentiaire bi nga xamante ne moom moo lay surveiller kooku forcément warul mën a nekk sa noon hmm. forcément on doit pouvoir connaître l'état d'esprit des prisonniers comprendre aussi dans quel état d'esprit ils sont et faire le maximum pour ñu mën a respecter seen ak yelleef ñoom itam ils doivent respecter les règles yi nga xamante ne moom la ñu teg ci prison bi parce que tey jii aussi lii ñu gën a fësal ci ñoom dafay gën a durcir lu leen war a fekk ci ëllëg dafay am conséquence hmm. le fekk que yi génn le fekk que yëpp génn ce qui am na lu bari loo xam ne même bu ñu leen ko mayoon hmm. diñ leen ko xaw a nangul tuuti matla yi nga xam ne moom la ñuy kaas ne amuñu fu ñu tëddee bu ñu ko lakkee seen situation dafay gën a metti seen xel xelu ñi ñi leen jege seen famille aussi hmm. du dal donc pour man vraiment c'est au-delà de faire régner le il faut que les autorités ñu dem waxtaan ak ñoom. Mhm. il faut que ñu xool aussi naka la ñuy améliorer les conditions de vie des prisonniers. respecter vraiment au maximum li nga xam ne moom mooy seen àq ak seen yelleef ndax xañ la liberté rek dafa metti et beneen bi ci topp aussi voir tous ces circuits non dits qui se passent dans les prisons les deals qui se ba ay téléphone di dugg. ba ay yàmbaa di dugg ak leneen ak leneen di dugg loolu tamit foog ñu lijjanti ko. Ah. te parce que bool bu ñëw ci butu ba dañ koy caxat caxatee balaa moo dugg loolu itam kaa loolu itam kaa mm. loolu dañ ko war a régler aussi mm, mm, parce que mënoo nekk ci kaso boo xamante ne ni yow sa lekk baaxul sa naan baaxul sa tëdd baaxul condition bi nga nekkee mu li yàlla xam doy na bu bool jógee sa kër ñëw tamit nga fekk ko ci benn état sa à dire de plus en plus dañuy gën a animer colère u yi te colère gu bari googu mooy jur mutinerie yi nga xam ne moo fi am démb. on espère que situation yi. aussi ñu xool euh, euh, prison bu euh, camp pénal parce que souvent yenn problème yi. fa la ñu koy euh, dégg fi jigéen ñi di nekkee mouvement d'humeur yi